Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ab l'accident bu métti moo am bësub tey bii ci yoonu Tambacounda ba ñett ci suñu ay naataango yu waa groupe de presse bu leeral ñàkk ci seen bakkan ñaar itam am si ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xam ne am nañ ko suñu naataango yooyu nga xam ne nag ñoom dañoo bokkoon ci journaliste yi nga xam ne dañuy couvrir euh, lii di tournée économique bi nga xam ne kii di président Macky Sall mu ngi koy amal ñoom nag seen oto moo mbëkkanteeg euh, ab camion kon ci kaw tël bi gannaaw bi nga xamee ne sax euh, ñoom ñooñu lee di waa leeral jiitu woon cortège cortège présidentiel kon ñoom dañoo jiitu woon cortège présidentiel bi nga xam ne ñu ngi ko bàyyi woon ci yoon bi nag kon la seen oto daal dajeeg ab camion ba mbëkkanteeg moom ci la jéey ji nag am ñett si ñoom nag dañoo ñàkk seen bakkan ca saasa euh, journaliste bi ñuy woowee Thierno Abou Sy cadreur bu ñuy woowee Yoro euh, Yoro Diallo wante itam euh, seen chauffeur ba di Ousmane ñoom ñett dañoo ñàkk seen bakkan kon ca saasa mu amit ñaar yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ba sax yóbbu nañ leen hôpital kii di président Macky Sall nag moom euh, jot na sax déplacé wu dem fa nga xam ne euh, foofu la euh, mbir métti moomu am moom président Macky Sall nag mu ngi naqarlu mbir mi mu ngi naqarlu mbir mi di njëb di jëbal kon njaalam lii di waa groupe de presse bu leeral wante itam ñi nga xam ne kon famille ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ñàkk seen ay ñoñ muy mbir mu tiis a tiis a tiis xanaa rek di ñaan yàlla buur bi jéggal leen seen bakkaar te xara leen aljana